Ousmane Sonko Ousmane ñu ngi lay nuyu Sonko. Eh, maa ngi lay fay aussi di nuyu sénégalais yi. nga mm. xamante ne bi ñu ngi ñuy teewlu. Mm-hmm. fu ñu mën a nekk di am ci ñëpp mbégte ak kontaan. waaw Ousmane euh, tekkaaral ji fan yii lan moo ko waraloon tàkkaa ni teg dal. lan moo li ko waral mooy. Euh, man dafa am noo xam ni noonu laay communiquer. Mm-hmm. te defe naa ni bi ma defee teg maa yore ba tey li nga mm. xamante bi moom la ñuy wax actualité bi. Mm-hmm. bi ma ñëwaatee aussi tamit di wax. maa yore li nga xam ni mooy actualité bi. loolu mooy li nga xamante ni bi am na solo. te ci mhm. loolu laa taxaw. Euh, euh, dañoo dégg ki nga xam ne rek moo di Ndaamal Kajoor génn muy ni mooy chef de l'opposition nga génn tontu ko ne ko ku wét xam sa bopp ku lu waral loolu. waa xam nga eh, am na loo xam ni bii. Mhm. doo ne mana. Mhm. dañ naan la yewa. comme que mi ngi toll ci mana. Eh, dama koy bàyyee loolu rek xam nga dañu dañu jëm nag tabaski. Mhm. moo tax ma joxe exemple ci xar yi. Mhm. wax ni foofa ca Côte d'Ivoire da Ivoiriens yi dañuy faral di wax ni xar yëpp a ngi doxantu ci Abidjan. Mhm. waaye bokkuñu prix. déedéet te loolu defe naa ni sénégalais yi xam nañ ko. rawatina tabaski bi ñu jëm am na pël-pël. am na ay xar yoo xamante ni bi coggal gi la ñuy bokk. am na xar yoo xamante ni bi aussi tamit moom la ñuy wax laaduma ki ay bali baleeg et cetera. Mm-hmm. ku ci ne nag bi nga ci nekk xam naa ni sa waay moom bu ñu ko doon xool xam naa eh, ngir tooñ rek dama naa xaru Casamance ndax taay bi. gàttaay bi. raas <laughs> daama. raas daama. xam nga dëgg yàlla wax lu yàgg sa raas daama. xale yooyu yàqar Casamance. loolu <laughs> de sama kër benn xarit rek laa koy fekk. Ah, li nga xamante ni bii eh, eh, mooy mooy mm-hmm. tax ma joxe exemple ci kii bi sénégalais yi ci seen jëmmi bopp. Eh, man musuma wër fenn di wax ni maay chef l'opposition donc naa ni yi ñoo ma ko wax mm-hmm. kon na demaat ci sénégalais yooyu ne leen lii ngeen di wax kii na dem ci bépp sénégalais bu koy wax rek ne leen lii ngeen di wax kii du kooku mën a bu dee am na jot gi fii ak 2024 voilà mu def loolu mu doon campagne am. <clears throat> moom nag daf la seesi woon. ba mu la seesee yéen ñaar lan ngeen waxtaan moom génn wax la ni la def ni la arrêté leen la wax. waaw seet cinéma. Mhm. waaye bi mu ñëwee dafa kaalaw wàcc ci cag-cag. ah ci cag-cag la teg ci bunt bi mu daa dee toog foofu. toog na fa xam naa dañ ma ko livré man dama ne woon xanaa Macky moo ma livré waa ji. mel ni que colis mel ni dafa mel ni bi mu ñëwee. Mhm. Eh, vraiment daal di ñëw toog. Mhm. Eh, ne ma dañ lay ñaan ngir yàlla. li laay war a suuri fi sabilillaay parce que. réew ah, mi ah loolu la Idi wax bi loolu la ma ñaan ne ma réew mi yaa ko téye parce que li tax nga téye réew mi. Mhm. mooy bu la neexee défilé du am. ne ma nag ginnaaw nag bu la neexee défilé du am. danoo bëgg nga bàyyi yow ci sa jëmmi bopp. te ñu ngi jëm ci ay defile te li laay war a suuri dañ lay ñaan rek. président de wax dëgg fa yàlla bi may ñëw dama ne ko maa ngi dem ci sonk ngir ñaan ko waaye waxuma waaw waxuma déet waaye ni ma xoolee laa xam ne kontaan na ci loolu ma ko wax. ne ma nag yow la ñuy déglu réew mi yow la ñuy déglu. Mhm. parce que boo nee xale yi suba bu défilé am soldaar yi li ñuy def mooy dañuy wër eh, di dàqante xale yi. Mhm. te président yi du mën a ñëw ak i ganam. parce que mën nañoo ñëw xale yi. sànni ay xeer. Mhm. te ay mag yuy daw di dugg ci oto musiba lay doon. nga wax xale yi nepp ngir yàlla ñu bàyyi ñu pour ñu mën a défiler mm, bi mu waxee loolu tamit comme tout patriote mm-hmm. nga xam ni bëgg réew mi moo ma tax a jóg mm-hmm. ma ne ko amul problème di ngeen ci jàmm ak salaam baal naa leen dem leen waaw yaa leen baal mu kontaan waaw ah d'accord léegi nemmeeku tur bi da nga ko commencé waat waaw commencé waat naa ko mm-hmm. eh, sénégalais yi namoon ma dëgg la moo tax it fu ma jaar gis nga ni nga xamante ni bi noonu la mbooloo mi di génnee wane seen bopp dans neuf mois incha allah yi bu neexee sunu borom. je suis le président de la république du Sénégal. jëf Sonko euh, temps bi jeex na. waaw xam nañ ko. voilà yëpp xam nañ ko. allez jërëjëf euh, Sonko. ñu lay ñaanal jàmm. Euh, sa nemmeeku tur bi tamit yàlla na la ci yàlla defal jàmm. amiin